muy noonu gis ngeen sarax si ba tey ñu ngi ànd ñoom ah gis ngeen li nga xam ne bii moom moo di sarax baa ngi noonu sarax la gis ngeen xale yi nag ñu lay sarax baa ngi noonu cëqatoo nañ ko gis ngeen lay cëq gis ngeen nun demee ndeysaan yi doy na waar kankurang ngoog sarax fruit kankurang baa ngi noonu ah xale yi nag ña ngay song la ilaha kankuran baa ngi ay banana yaa ngoog banana ye sarax ba ndeysaan ay waay xoolal ma lii rek la ilaha illallah ay waay waay waay waay ay waay combat ba commencé na waay situation baa ngi dégenéré situation baa ngi dégenéré ay waay waa ji yore mbir yi mbaa duñ ko rey mbir mi doy na waay waa ji yore furi ji mbaa duñ ko rey. moom laay wax nag. waa ji yore furi ji mbaa duñ ko rey. ay waay waay waay waay. waa ji kiif wala nu mu demee. kiif daa ab géede waay wala sabataan. wéy le le le le le. ma dem am doy na doy na waar. laa ilaha illallah. ma doy waar sabataan la wala xiif la. waa ji yore furi ji day fi mu toll nii xam nga duñ ko xale yi. ay waay furi ji waaw. ma ko na benn. am na muy dugal ci saagam moom dugal saagam woon na muy def ci saagam man ko séddale taamu naa ku duy njëkk ya jigéen bi joxe la waaye joxewul yëpp de am na boo xam ne ci saagam la ko dugal ci saagam ah loxo bi wax na dëgg loxo bi ay waay xale yi bëgg banaana waay yee déedéet waa ngi dox ay man dox naa